magnéto bi la ñuy déglu ba pare après ñu daal dellu si waat ci waxtaan tuuti. Aujourd'hui, dans la rubrique santé, nous allons nous intéresser à l'anémie, qui se manifeste par une diminution de la qualité ou de la quantité des globules rouges. Les globules rouges sont des cellules qui servent à transporter l'oxygène dans le sang. Il existe plusieurs types d'anémie. La plus courante est l'anémie ferriprive, liée à une carence en fer. Pour le diagnostiquer, il faudrait une prise de sang demandée par votre médecin. Il va vérifier que les taux d'hémoglobine et de ferritine sont normaux. La ferritine est une protéine qui sert à stocker le faire dans l'organisme pour dire que l'anémie est une maladie qui a des conséquences, mais heureusement pour le traitement, en mangeant des aliments riches en fer, il en existe aussi deux types de fer, le fer héminique, protéine animale ou non héminique, à savoir les légumes, les verts et les légumes secs. Le fer héminique est beaucoup plus assimilable, mais il faudrait éviter pour ceux qui ont de l'anémie le thé, le café, le chocolat pendant les repas, car ça

waaw tey dañuy wax euh, waxtaanee li nga xam ne nekk anémie mu surtout en période de mois de ramadan ñi nga xam ne jël fer wala ay calcium dañuy gis que à chaque fois anémie da a sonal te difficulté pour voir, parce que li nga xam ne quantité globule rouge day bu Ok, et euh, moi, d'après ce que j'ai compris, Amna Ben partie boy euh, que les gens animés mhm. doivent éviter de boire du chocolat, mhm. du café euh, et tout ça. Mhm. Tu as dit parce que ça diminue day wagn li nga xam ne absorption wu fer bi parce que mu nekk ay thé café chocolat dafa am ay éléments yoo xam ne nekk day wàññi lépp loo xam ne nekk par rapport ak apport la boo xam ne nekk da koy joxe en fer moo tax ne nekk ñu ne booy lekk wala nga am anémie booy euh, nekk di def petit déjeuner wala déjeuner wala dîner éviter yooyu noonu bu ko lekk après le repas wala avant le repas. quelles sont quelles sont les causes. c'est-à-dire lan mooy indi anémie. qu'est-ce qui cause anémie. Oh, waaw anémie li koy indi benn mun naa ne jigéen ñi nga xam ne nekk dañu nekk en en état de grossesse. Mhm. li tax ñuy am anémie mooy que bébé bi nga xam nek que dafa nek sen bir ci sen fer lañuy ñuy puiser wu mhm. donc ñom dañuy am tendance sen fer day ko bu bari bari donc il faut muy am ay complément wu par rapport ak garab yi wala lekk yi mhm. beneen bi moy que ñi nga xam nek sen que aliment c'est pas assez riche en fer ñooñu dañuy setlu nek dañuy bari lañuy am anémie troisième cas wu cause ñi nga xam nek que dañuy am anémie moy jigéen ñi nga xam nek dañuy gis sen règle mhm. perte abondamment abondance su deret bi nga xam nek que day jóge ci ñom dina causer li nga xam my enemy. D'accord. Et euh, une autre question. Mhm. euh, des fois, par exemple, les gens, pour vérifier si tu es animé ou pas, mhm. alors ils regardent la paume des mains, ou des mhm. fois, il, euh, il, le, docteur, il baisse tes yeux pour voir. Euh, c'est quoi ça, en fait Waouh, lolo da lay permettre nga xam ndax nit ki am ou anémie wala amul anémie parce que par rapport à bët bi wala sa loxo bi doigt bi boko ko ni bu baax rek automatiquement c'est des signaux qui xam ne que montre si la personne amna animée ou wala amul anémie par exemple paleuru bët yi pal paleur nan naa ko mën a waxee en wolof euh, bët ci ni muy saddee mhm. wala ni muy melee ni nga xam ne que day tëju wala day am mhm. airu triste bët ci mhm. loolu rek mën na la wane nga que ay signe la yoo xam ne que cette personne mun nañ ne que kii mun nañ sikki saaka ne dafa am euh, li nga xam anémie ok moi nag je pensais que c'était la rougeur mm, mm. parce que tu sais moi par exemple j'ai la paume des mains mm-hmm, blanche mm-hmm. mais bi ma bi ma demee xool on m'a pas dit que j'étais anémiée mm-hmm. donc euh, je me dis que aussi pour pour xool ndax tu es anémiée ça ne dépend pas aujourd'hui de la couleur de tes mains pour savoir parce que t'es un xale tu on disait souvent bon quand t'as les blanche, ça veut dire que tu es animé. Quand tu as les, mains un peu rouges, euh, voilà, on dit que c'est bon, mhm. C'est vrai, Coco, hein, c'était bizarre. Hein. Ou bien quand tu es animé, on te dit de boire du, Vimto, mhm, par exemple. Comme si euh, psychologiquement, le Vimto va rentrer et, montrer que tu t'es que tu voilà accomplir euh, ce que le sang il faisait ou bien moins mm-hmm. et aujourd'hui c'est quoi les conséquences de l'anémie parce que des fois nga gis ñu sévère mm-hmm. euh, voilà c'est quoi les conséquences euh, conséquences Iberina parce que anémie kese kese kese mën na am traitement mais anémie plus nga boole seeg yeneen feebar di day gën a compliqué par exemple nga am tension bu wàcc nga boole ceeg anémie ce sera compliqué moo tax euh, li ñuy conseillé mooy que anémie euh, en général day ànd ak symptômes yu bëri maanaam da ngay sonn da ngay am ay étourdissement plus pâleur bi. côté bët wala côté loxo bi ngay expliqué. at essoufflement bi loolu yëpp boo ko ci boolee nga gis ne que yaa ngi commencé di perte équilibre wala yaa ngi commencé di mire sentir boo sentiree yooyu yëpp demal si médecin bu defee diagnostic bi que ne que yow da nga animé. soit dina la ne. anémie sévère la wala début d'année bi la par rapport à cela bu ci nekk dina am traitement boo xam ne ne que mën nañ ko adéquat boo xam ne ne que dina ànd ak anémie bi nga am mais il faut dire que anémie rek euh, baaxul parce que da ngay am loo xam ne ne que mooy diminution des globules rouges te loolu c'est pas bon pour la santé plus yeneen feebar yi nga xam ne ne que mun nga ko ci booleel ça amène d'autres complications. D'accord. Ben, donc si vous êtes anémien, ben, écoutez, pour manger du fer, ben, je vous conseille les lentilles. Ouais, c'est pas bon, mais

Waouh, Coco. Ok. Tu n'es pas animé. Non. Tu as vérifié. <laughs> non, Dieu merci. Alors, le, direct a commencé. Euh, vient de nous rejoindre. Il, a, il vient d'activer le direct sur Facebook. Alors, ils sont déjà là. Falilou Djaou,